am joie. suñ programme mooy dañuy développer le transport maritime transport maritime dafa am yu bari yu ci nekk euh, mooy am na transport passager am na transport euh, tourisme am na transport euh, marchandise am na transport pétrole am na transport yëpp yu nekk ci biir te Sénégal dafa am 700 kilomètres de côte kon tey waroon nañoo mën a wax fu nit di dem. ci Sénégal man nga ko ci dem par bateau wala nga yóbbu sa marchandise nga di ko yóbbu par bateau te loolu bu amee day wàññi coût day wàññi pollution bi euh, day day day nekkaale loo xam ne dafa am sécurité parce que xam ngeen ne euh, euh, navigation dafa am sécurité sécurité bu mag la am li ngay dégg naa bateau ci àdduna bi bariwul mu nekk sama famille ndax am naa ay employé marin Kosama construction sénégalaise des activités maritimes xam nga ni ñun ñoo ko reprendre et en même temps man maa ngi gérer port portu Kaolack kon xam naa seen euh, métier e loolu nag day war a ànd ak ñoom ñu jox leen seen cër former leen euh, ba nga xam ne nii parce que métier bu compliqué la bu metti la et je pense que loolu moom ci suñ programme la bokk. lu jëm ci diaspora xam ngeen ne man dama ci am benn programme boo xam ne mu ngi tudd agir mooy euh, gestion de l'immigration et de retour mooy dañuy négocier ak réew yi nga xam ne ni dañoo soxla main d'œuvre ay quota yoo xam ne nii danañ mën a dem liggéey fa bala ñoo dem ñoom ñoom la ñuy yabalal ñu ñëw fii ñu former ñooñu ci niñ bëgg ñu liggéeyee mais diire de contrat bi day doon maximum cinq ans parce que suñ sañoon tamit duñ yóbbu suñu doom yi ñu toog foofu di liggéey toog foofu mais dañuy ñibbisi bu ñibbisee état bi jàppale leen bañ mën a développer ay projet projet yooyu nag ci secteur bi nga doon liggéeye ci la lay jàppalee diggante ba nga fa nekk tamit ambassade bi day nekk sa kër lépp loo soxla ci wàllu kayit ci loo mën a doon rek ambassade yi dañ koy transformer mu nekk ambassade des bureaux yoo xam ne li ëpp lu muy toppatoo day toppatoo sénégalais yi nekk foofu ci àdduna bi yëpp nag loolu su ma ko waxee moom ci àdduna bi yëpp en même temps tamit di leen jàppale teg fa ay programme yoo xam ne nii képp ku bëgg a ñibbisi ñu jàppale la ba nga mën a am say logement ba nga mën a ñibbisi investir def développement fii nga xam ne ni tamit du tee da nga mën di dem ak a ñëw